mbokki Sénégal asalaamualeykum wa rahmatullah mbokki àdduna bi rawatina mbokki Touba ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaare bu baax di jiite di nuyu boobu saaxibul fadila sëriñ Cheikh Thioro Mbacké mi nga xam ne moom mooy coordinateur bu Pastef bu Touba di jaarale nuyoo boobu ci moom ci coalition Yewwi Askan Wi bi nga xam ne président Ousmane Sonko mi ngi ci biir ak mbooleem ñi mu nekkal ñëpp ci coalition bi waaye tim mu ànd ko ak wàllu Sénégal di mbooleem ñi nga xam ne ñoom lañu investir fii ci département Mbacké euh, Serigne Cheikh coro Mbacké ak soxna Fatma Mbodj ak mbooleem ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci biir ñëpp muy cinq leaders yi nga xam ne ñoom la ñu investir ci département Mbacké ñun nag ñu ngi wax ci turu mbooloo mi nga xam ne ñoo nekk ànd ak ñun liggéey bi di ay sëriñu daara di ay jàngalekat alquran di ay yerekat sëriñ daar soosu nag xam ngeen ni fii ci département Mbacké rawati dëkk bi ñuy wax Touba at yi yépp ñi ngi am yitte ak ay xalaat ak aw gisiin ci ni réew mi di doxe ci diggante yar ak njàng mi ak li nga xam ne moom mooy dunduk Sénégal sëriñ daara soosu di mbooloo mu bari moo xam ne territoire Sénégal bi yëpp la ñu nekk ñu waxtaan ba juboo gis ne kat réew mi laaj na bu baax ñu dugal sunu loxo laaj na bu baax ak coppite waaye laaj na bu baax ñaxtu ak jàmbat ak jooytu niñ ko yore yore nu rafetut loolu waral na nag ñu sol sunu dàll duggu Tuubaa ci mbooleem foofu sëriñ daara nekk chaque alxames bu ñu jàngalewut boole suñuy dërëm boole suñuy xalaat jël suñuy oto daara ju nekk ñu nuyu fa boroom dugg fa waxtaan ak moom mën naa ne dippi élection yi jàll six mois ñi ngi ciy dox te fu ñu dem benn kàddu gi rek lay doon mooy révolution jot na soppi réew mi li fi nekk jot na jëlee ko ci loxo yi ñi fi nekk teg ci loxo yi set loxo yi set yooyu nag bi ñu gisee ne suñu waxtaan wi yépp ku fi teggee nit da nga fi teg nit la ñu jàngat seetlu ki gën a rafet aw doxin ndax xam ngeen ne bu ñuy tànn dañuy tànn ka gën wala ka gën a gën ñu gis ne ki gën ci réew mi jamono yi ñuy waxtaan mooy leader bii di président Ousmane Sonko lu tax ci ay jikkoom yu rafet lu tax ci comportement am lu tax ci bëgg am réewam te bëgg sa réew dafa am solo trop ndax moo lay jaaral nga fàtte sa intérêt di xool intérêt réew mi ñu waxtaan nañu nañu nekk ci gannaawam jàppale ko sëriñ daara yi nekk ci biir Sénégal yëpp bi ñu ko déggee ñu commencé di di ñu contact di ñu jokk di waxtaan ak ñun ba ñu boole mbooloo mi yëpp mu doon benn loolu nag bokk na ci li ñu gën a dimbali bi ñu demee ba war a egsi ci programme campagne bi ñu ne nañu waxtaan nan lañ ciitu ke bi ñu waxtaanee ba nañu dajale suñu koppar moo ci jiitu ndax lépp lu bëgg def ci campagne day am moyen ñu ne moyen boobu nag duñ ci xaar kenn li ñu def mooy nañu jël suñu ñaq def ci ndax ñun dañoo yar ci jàng ak yar ak jub ak dunde saw ñaq nu jël suñu ñaq def ci mooy campagne daan def yépp ci six yi dañuy dajale suñu dërëm suñu tuut luyee suñu oto ba guddi vingt heures vingt deux heures ñu wàcc dem ñibbi wala xam ne ñu nekkaat ci yàlla dogal nag mag Sall nee naay day envoyé waa réew mi ku ne quatre vingt mille man mii di wax yow jiite daara internat Cheikh Mouhamadou Mourtada Mbacké fee ca Touba Guy Mbind mu envoyé ma quatre vingt mille ma ne ko ñun dañu ngeen waxtaan ci lu ñuy tege lu ñuy joxe cotisation kon sama quatre vingt mille yi moom dugg na ba pare quatre vingt mille yooyu ñu dugal ko ci biir campagne bi jël suñu dërëm yi boole yëpp sëñ daara bu nekk teg ñu tourné di campagne plan campagne bi ñu amoon mooy wër mbooleem sénégalais yëpp ci biir Touba ñu fi nekk ci biir Touba la euh, wër leen département Mbacké bi yëpp waxtaan ak ñoom sëñ daara si loolu nag lay fàttali sëñ daara yu bari ne leen ñun Macky Sall daf ñoo yàgg teg aw naqar ci wàllu dund gi daf ñoo yàgg teg aw naqar ci wàllu jëflante bu maandu wut bi bi ci biir réew mi wala ci rawatina nag ray bi ak ñàkk sécurité bu bëri bi ñu ne nag loolu suñu diine moo sant ñu taxaw nag wax ci ndax man raa minkum munkaran fal yuxayyirhu bi yadi fa in lam yastati fa bi lisaani wa in lam yastati fa bi xalbi wa dalika adaafu l iman yonent bi moo wax ne ku gis lu safaan na nga ko dindee sa loxo ñun nag amuñu doole dindee ko suñu loxo mu tekki na nga ko dindee saw làmmiñ loolu moo waral nag ñu fas yéene dindee ko suñu làmmiñ ndax àgguñ fu ñuy fu ñuy fu ñu koy naqarloo fu ñu yeme ci naqar la bi kese loolu moo waral nag suñ daaris yépp yi ñu àndal rawatina bootu ci coalition Yewwi Askan bi ndax muy leer ñun dañuy politique pour mu leer mais politique bi ñu def nag soxlawuñ ci benn dërëm dañ cee soxla liggéeyal suñu réew waaye dañ cee soxla nag tànn tànneef loo xam ne yàlla moo ñu ko indi muy président man Sonko ngir jàpp ne gëm ne bu jotee réew mi yàlla mën nañu defal tawféex dal am ci réew mi koom naat am ci réew mi ay jikkoom ak doxalinam da koo wane te ñi nekk fii ñëpp xam nañu ñoom nekkuñ ci ay jaaxaan ndax man sëñ Cheikh Thioro dama ko fan lu ma ko nawee mooy damay gis ne saa yu toogee plateau di wax li ci njëkk ci waa Touba mooy discipline ab yar te loolu dafa am solo ci doomu adama ndax Touba moom luñ la mën a bàkke lu ab yar bàkke wuñ la dara bàkke wuñ la dara ndax ab yar moo fi jut ndax ku jàng nax jo xam ne yar yar fi jiitu tariqatul adabi rahmatu saxir kal abbi wal ummi wa tawqirul kabir lu ci topp wa jaalu mislika li wajhi xaaliqin ala arsh istawa kon discipline bu dafa am solo trop yàlla ñu yàlla barkeelal fayal ñu ko ba mu dem assemblée kon réew mi yëpp dana jag rawatina rawatina Touba gi loolu tax nag ñuy lancé suñu mbokki sëriñ daara yi fu ñu mën a nekk ci biir senegal ak ñi boot ci mbooloo mi yëpp ñu ngi leen lancé ne leen wote yii mooy wote yi ëpp solo sax présidentielle yi ndax wote yi kat Macky Sall xam na ne li ci nekk ci bu ko ñàkkee ci ay gravité ci moom li jëm ci moom moo tax mu gar ci bakkanam lu mu ko jaral na waroon jaral lu ko raw kon maa ngi wax ne sëñ daara si nekk ci biir Sénégal yëpp rawatina ndeyu daara yi ak dong yi jaaroon ci daara ak soppe daara ndax ñun popularité bi ñu am ci Sénégal du lu ndaw de ñooñu laay woo ne leen nañu jug jug jot na dañu jël seen carte électeur dem vote ci bisu vote ba ànd ak seenu njaboot bu ñu demee vote ba pare dellu ci daara ya ñaan yàlla borom sonta la mu may ndam yeewi askan mu nekk majorité assemblée nationale yàlla nañu ko yàlla defal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 asalaamaaleykum mbokk yi ñu jàkkaar lool ñu ngi nuyu ñëpp di leen ziyaara bu baax di wax ci turu sëriñ daare yi nga xam ne ñoo takku def wenn say di jàppale président Ousmane Sonko ngir fas yéene 2024 ñu jox ko réew mi incha allah di jiital ci nuyoo bi Cheikh Mamadou Muntaqa mi nga xamante ne si mooy xalifatul am li taifatul muridiya di teg noo tur coordinateur sëñ Cheikh Thioro Mbacké ak soxna Fama boobu ñu dendal ak mbooloom ñi nga xamante ne si ñoo koy jàppale ci liggéey bi di nuyu Cheikh Amadou Bachir sëñ Thioro Mbacké ak euh, sëriñ Ousmane ak Cheikh Abdoul Ahad mi nga xam ñoom lañ àndal ci jataay bi fi teewal fi nag mbooloo mbooloo mu mag sax comme ni ko Cheikh Amadou Bachir waxee sànq ci dim bi mu doon def wax lan moo waral xedef bi gannaaw bi ñu defee ay mulaaxadaat yàgg ci réew mi wala boog dund fi lu tuuti tuuti fekke fi ay nguur ba ci nguur gi ñu ne te mooy nguuru président Abdoulaye Wade ak nguuru président Macky Sall mii nga xamante ne si yenn saa sax bu ma koy wax dama bëgg wax rek ki jiite réew mi yem ca ñu nekk ci ay sëriñ daar di ay jàngalekati alquran in ni réew mi doxee nag intéressé ñu lool doxinu réew mi ñuy jàngat di xool di dund dem ba jamono ñu posé suñu bopp ay question ndax ñun dañoo war a jàpp ne rek ay sëriñ daara lañ ba tax na dañuy toog ci suñu daara jàngale rek ñu dañuy noote ay kàccoor di falu di ñu yilif ca ñoom nañ ko bëggee pas ñun ni ñu arrangé ak ni ñu ko bëggee tontu la mooy déedéet kon changement war na am te mooy lan fas yéenee participer ci vague bu am solo bii ñëw am doole lool nga xam ne ku taxaw ci kanam mu jaar ci sa kaw jàll te mooy leader bu mag bi di président Ousmane Sonko gannaaw bi ñu defee ay jàngat topp ko na ko chiffre bu baax a baax a guddi ak bëccëg mboolem ay discours am gëstu parcours am te discours ñaar la dañuy wax politique ñaar la discours parcours parcours bi set wecc discours bi leer nañ ñi bàyyi ko ca xol dugg ci ay xol ñu yëg ko comme ni ko Sénégalais yépp yëg yëgee ñu ne nag kon jug jot na fas yéene ngem bu ànd ak moom ci di ko xeexle di ko ñaanal d'abord di ko jàppale ci lu ñu mën zaahir ak baatin ngir fas yéene 2024 ñu jox ko réew mi loolu moo waral takkuwaay bu am solo bii ngeen gis sëriñ daaree takku ko defe naa la première fois ñu mas a gis lu mel nii di am mais nag dañu koy assumer bu fekkee ñoom nit ñi jàpp nañu ne gis koo xamante ne sii moo gën ci Sénégal nga di ko dooleel ci ay kaddu ci ay jëf yuy tax mu gën a dëgër ba fam mën a jëm mu man faa àgg ak jàmm ba lam yéene Sénégal mu def ko bu dee loolu mooy politique jàppale ne ñun moom ay politiciens lañ kon yu mag waaye nag ci façon boo xam ne xamee ko ña ko daan bu njëkk ñun façon bi ñu ko bëggee mooy façon bi nga xam ne ki tax ñu dugg ci politique ki nga xam ne moom ci gundi ci doxinam muy président Ousmane Sonko fas yu nu woowee tax mooy set wécc waaw di wax dëgg jub tey jubal fas yéene loo wax nit ñi muy loo nar dama ko dama dafa am loo xam ne dama ko remarqué ci président Ousmane Sonko ci euh, élection 2017 ci ci député yi mu dem ci benn dëkk ba mu fa àggee ñu wax ko soxla yoo xam ni président la war mun leen lii ngeen ma wax képp ku fi ñëw naan damaa bëgg dem assemblée wax ngeen ngeen wax ko lii mun leen waaw jàpp leen dama leen wax nekkul lu wér assemblée dafa am loo xamante ni si moo ña fa nekk loolu lañ mën incha allah lépp loo xam ne ab de mën na ko ci ab goxam jàppale na loolu bu ci àggee ci laa wax baa dem wax moom mënu ko si waaye maanaam maanaam mën a wax jàppale nañ ko taxaw am maa la ci des leen ba ngeen fal ñu incha allah rabbi njiité réew mi lépp dana saafaraw kon loolu muy wane ne kii kat lii muy wax nit ñi mooy li nga xamante ni mooy nekk ci moom ak li dëgg waaye nekkul di wax ay nit di ngir nax leen pour am lam bëgg kon nag jug defa jot waaye kam dafa xam ne ida shaabu araada alxayaa fala budda an yastajiba alqadar wala budda lilleyli an yanjali wala budda lilqaydi an yankasir gis nga définition bu jotee faw nañu xam ne lawoon day won ni bëccëg moom guddi moom lu mu guddi guddi faw ba set nit ñi nag mënul dëkk ay jéng chaque jour kon dagg ko jot na comme ni ko xam ne moom président Ousmane Sonko wootee loolu moo waral lii ma fi lim nii sànq moo waral jugug sëriñ daara yii dugal seen loxo ci politique bi fas ci ne ànd ak président Ousmane Sonko ci kaw loolu ñuy kontaan bu baax ci sëñ Cheikh Thioro mu suñu coordonnateur parce que képp koo xamante ne si da nekk ci ab gox ne da bëgg jàppale ab leader ka fay mooy sa coordinateur loolu muy mu leer nañ ñi ñun sëriñ daara yu jàppale président Ousmane Sonko ñu tuddee ko ay sëriñ daara ngir ne ay jànkat alxuraan lañ waaye nag téewul sëñ Cheikh Thioro moom fii ci Touba mooy coordinateur bi yeneen gox yi ka fa président Ousmane ko teg kooku mooy coordinateur bi sëriñ daa fa nekk dañuy jàppale di liggéey ñoom seen biir waaye di dëgëral ko fa nekk lépp rek ngir président Ousmane Sonko am ndam loolu rek mooy hadaf bi ni ko ba si waxee ñu jóg campagne bee jàll muy locale yi ku ne xam nañ ne def nañ ci déclaration bu am solo boo xam ne jàpp nañ ne message bi jàll na ndax seen taxawaay mën a am solo mooy lan mooy dafa am ñoo xam ne dañuy leen xamee ci ak mbaax ba ñu ñu fu ñu jublu rek foofu des fay yaakaar dara da nga naan ah comme ñoom diw ñii ñoo dëkk ma lii di jàppale diw sangam kon kooku mën naa jàppale ndax sëriñ daar kenn musu koo xam ci ay caaxaan kenn koo xam ci lii te préparé nañ ko bu baax nag xam lu lu lu ci mën a am lu mën a doon lan la kon lii mooy hadaf bi nga xam ne moo waral sëriñ daar yi mhm. jug takkutoo fas yéene jàmmaarloo ñi fi nekk la ci mooy ñun sëriñ daara yi ñun moom ñoo war a gën a jóg ngir taxaw Macky Sall jóge ci réew mii moom jiite réew mi ndax lan ndax diiran li mu fi nekk yépp seet nañ ne boolewut daara ca dara boolewut sëriñ daara yi comme ñu ay sénégalais fasul yéene sax xalaatam jëmu sax di leen jëm a ci fonction publique te président Ousmane Sonko am na ay yéene yu am doole yoo xamante ne jëm ci mbiru daara loolu bokk na ci li ñu ko fekkee beneen dafa xam gëdd sëriñ daara ndax am na bis mu dégg ñu ne dañoo bëgg a corrompre sëriñ daara mu ne ñooñu moom wóolu naa leen noonu la ko président Ousmane Sonko waxee ñooñu wóolu naa leen nañ dem ndaxte yàgg nañoo dund la ñuy dund fekku leen ca kon bu tay jotee ba nga jàpp ne war ngaa dem foofu jël yaa nax sa bopp loolu sëriñ daara dégg nañ te xam nañ ko beneen bi euh, ñu gis ne président bi xam ne moo jiite réew mi ay jamono suñu ay mbokki sëriñ daara tëj seen ay daara jël seen ay ndongo delloo ko seen ay kër yi mu yóbbu leen ci ay centre yoo xam ne jàpp nañ yare ni ko ñu fa lenn du ay caaxaan jublu ci lenn nag xarab lu dul nërmeelal daara waaye nag ñoom ñu ngi defee système système boobu nag moo baaxut moo tax président Ousmane Sonko loolu faaw ñu soppi ko te mooy yow boo neree ak caay-caay daa am leen loo ca laxas waaye nag li nga bëgg rek mooy fexe ba li nga bëgg réussir loolu nag dañu dafay jeex loolu moo waral gannaaw bi nga xamante ne si lancé nañ message bu am solo boobu ca élection yële jàll ñu gis ni am na solo lool ñun fi ñu féri ci tuuba ñun dañ ñu tamit nag dañuy jóg waaye dañuy sensibiliser suñu mbokki sëriñ daara yi nga xam ne ñu ngi ci leen gox ñoom tamit jug comme ñun ni ñu jógee di jàppale ka nga xamante ne si moo fa nekkal président Ousmane Sonko moo xam ci intercoalition bi ka fa nekk muy Yewwi bannière Yewwi moo fa nekk mooy liste ba wala wala moo fa nekk nañ jug jàppale liste boobu def lu ñu man ci kàddu ci jëf ci dox ci lépp fexe ba liste boobee falu fii ci Mbakke nag fii ci département Mbakke ñuy wax ne ñun suñu mbokkum daara mii di sëñ Cheikh Thioro nga xam daa bokk ci ñun moom gannaaw ba mu nekkee coordinateur Pastef lu bëri même duñ toogul da ngay dégg buy wax day dugalaal ci ay discours am président Macky Sall ni mu taxawoo daara baaxul dafa xeeb sëñ daara yi dafa nangam sëñ daara nga xam ne kon kii mi ngi bàyyi xel ne moom daara la loolu bokk na tax ñu boole ko suñ ci suñu biir muy doomu daara comme ñun yaa ngi dégg yàlla dogal la xëy na ñu féetal ko fii ci joxe darsu yi fépp foo xamante ne sii liste boobu nekk na fa rek nañu xam ne foofu boobu mooy bu baax bi fii ci département Mbacké nag dañoo bëgg waxuñu ay raw Macky Sall non non dañu ko bëgg raw largement diggante bu sooree sooree sooree sooree ay junni junni junni écart ci ay carte lañ ko bëgg a raw moo tax fii liste bu baax bi bii la bii mooy bi nga xamante ne sii yow mi nekk Mbakke yow mi nekk tuubaa ak li ko wër te bëgg votel président Ousmane Sonko xamal ne liste bu baax baa ngi nii mooy liste bu Abdoulaye Wade bii nañu ci vote nañ ko vote ñëpp ma ku dem rek na nga ko xàmme nga jël ko lem ko ba mu jekk dugal ko ci biir enveloppe bi te bañ a kol enveloppe ba waaye na ko roof rekk yem ca ndax sinon mën na waral vote bu yàqu maanaam dañaan la yow kat sa bulletin bii nga dugal ci biir kat ni nga ko defee baaxut moo tax dañ koy annulé lool na ko ñëpp moytu nañu fexe ba nañu ko jël lem ko ba mu jekk dugal ko ci biir enveloppe bi jël enveloppe bi rof ko ndànk te bañ koo kol bañ koo tufli bañ ko def dara soo ko dugalee jàppal na yow moom bu ñëpp melee na yow insha allahu rabbi Yewwi Askan Wi ak Wallu dañuy raw Macky Sall largement beneen bi mooy ñun dañoo yitteel defar jikko yi moo tax mbirum góor jigéen ci boppam dina waral yow mii dëkk Touba te jël liste bii dugal ko ci biir enveloppe bi wootee wallu muy liste bii loolu dina waral mbirum góor jigéen dafay jóge fasaasa ndax ñoom kat dañ ne leen këyit a ngi nii voté leen ko ne góor jigéen araab na fi tifaaqan bu ko kenn defati ñoom ñu lànk ne duñ ko def ñoo xam na lu ko waral liste bi nag boo ko votelee xamal ne moom loole bu soobee suñu borom dañu koy jëfandikoo mooy góor jigéen dafa amati tifaaqan beneen bi dina waral lenn mooy président Macky Sall dootul def xelam mukk ci troisième candidature tax xam ngeen ne bis bu ko amee rek xam du ci nekk waaye bu ko ñàkkee rek xam leen ne xelam dootu ci nekk te mooy jàmmi Sénégal kon liste bu baax baa ngi nii département Mbacké ñi ngi ñaan mboolem fu sëñ daara nekk mboolem fu parent ndongo daara nekk mboolem ku mas a génn ci daara mboolem kuy woy juru ndongo daara wala ngay soppe daara ñun sëriñ daara yi nga xam ne ñooy jàppale président Ousmane Sonko liste ba baax baa ngi nii na ko ñëpp jël voté ngir ñu dem assemblée nationale gañe ko bu baax a baax a baax a baax a baax jël majorité absolue ndax dafay leeral yoonu 2024 président Ousmane Sonko jël ndam li waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. bisimilah rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki département Mbacké ñoo ngi leen di nuyu nuyu bi gën a tedd di leen nuyu ci turu coalition intercoalition Wallu Sénégal ak Yewwi Askan Wi ñuy euh, sagal bu baax di sagal suñu kilifa yi fi toog ndax kilifa lañ leen di wooye muy képp koo xam ne nitu daara nga su ngeen déggee kàddu yi fi jib nag maa ngi yëkkati sama kàddu ci turu Serigne Cheikh Thioro Mbacké itam mi coordonnateur Pastef Touba di candidat ci liste titulaire départemental bu Mbacké ak sunu nawla yu nu bokkal liste bi yépp li ngeen dégg nag waruñu bett ndax fi mu jóge ndax ñii doomi alxuraan lañu ñun ñëpp sax ay doomi alxuraan lañu fii ci Touba ku dégg nitu daara nag mu waxee nii te xam ne doomi alxuraan mooy ku jàng alxuraan te di ko jëfe ndax bu nee diine bu nee alxuraan ni diine te alxuraan a ëmb lépp te alxuraan ay dëgg kon ñii du ànd ak ci lu dul dëgg duñu ànd ci nafiq politique nag du loo xam ne intérêt la dafa war ndax lépp diine da ko indi mbir day toll foo xamante ne dafay war nekk loo xam ne dañ koy daganal sax nag nga xam ne ku ko deful day mel ni waru nekk nga ci la nga war ta nekk kon politique aw gisin la ndax ku ne war nga ci dugal sa yoon waaye bun na rek ab sëriñ warti politique wala nitub daara warti politique ndax àdduna arxuraan moo tënk lépp su sunu àlliwa suriwut itam xam nañ ci ne mbirum tey ak ëllëg alxuraan ko tënk suñu borom bàyyiwul dara. adma lii àdduna doxee mooy administration lu jiitu la woon lu jiitu ca jamono yonantee ba tey kon doxalin alxuraan moo ko tënk diine moo ko tënk. ñi nag li ñu wax muy sëriñi daara yii ñëpp leen ci war a fekk si ci képp koo xam ne baatu dëgg ci ngay dox ndax réew mi 1960 ba tey sonn nañu. ñi fi nekk yàgg nañ fi toog di doxal ci seen intérêt bopp waaye du intérêt réew mi ndax 1960 ba léegi réew mi waroon naa weesu fii ndax ba ñuy wax naan Dakar sera comme Paris l'an 2000 am na ñoo xam ne ku leen yeewoon tey ñu ñëwaat fekk senegal ni mu mel dinañu yéemu kon bu ñu jógee sóob ci seen loxo def nañ lan war a def ndax askan wi ñëpp ñoo leen war a jóg taxawu leen rawatina kilifa yi ndax niti daara yi ay kilifa lañ ay njaboot lañ njaboote ñiy jàngal diine ak seenu njabootu bopp kon ñoom ñëpp ay kilifa lañ kon kàddu yaa ngoogu defe naa ne ñun ñëpp ñoo ko déggandoo. président Ousmane Sonko nag li ci dugal nun ñi ñëpp moo ci dugal képp ku ci dugg nit ku baax ndax ay kàddu bu jógee ci xol ci xol lay tàbbi te dëgg rekk nag moom nga mën a nootee ñëpp waaye lu dëgg kenn mënu cee noot ñëpp te ki nga xam ne daf la woo ci dëgg nga gis ci sa bopp gis ci sa intérêt te intérêt bi mooy intérêt njaboot gépp mooy intérêt askan wi ndax askan wi nooy suñuy mbokk nooy suñuy njaboot ñooy suñuy waajur nooy suñuy borom kër nooy suñuy càmmiñ mooy ñëpp kon ku jóg taxaw intérêt askan wi jaral laa jóg nelawoo yendalatoo ngir intérêt Sénégal kese kooku nu ñëpp dañuy jóg tàll leen loxo kon maa ngi leen di fekk si ci lii ngeen wax di ko rafetlu waaye nag delloo ngeen buum ca mboy mboy ga ndax su ngeen jógee toog fii tënku ci alquran mi nga xam ne mooy diine mooy lépp te ñëpp nu di jullit kon lii exemple la boo xamante ne gën na dalal xel ñëpp gën naa tamit tax nu ñeme fa nu jëm te liñ ci dugal woon bu ngeen ci fekk see te nga xamante ne euh, njaboot gi ak askan wi rek a tax ngeen jóg kon alhamdulilah rabbil alamin kon noonu mu ko waxee rek noonu lañ koy waxee ñëpp député yi daal ñu jëm muy élection yi di le 31 janvier na ñëpp xam ne 18 département yi nga xam ne wàllu Sénégal ko jiite muy bulletin maître Abdoulaye Wade bii département Mbacké ci la bokk député yooyu nag Cheikh Abdou Bara Dolly moo ko jiite di tête de bi Soxna Astou Mbacké bintu Cheikh Abdou Borom Dër bi ca la bokk Serigne Cheikh Thioro Mbacké mii ca la bokk Cheikh Abdou Mbacke Ndaw di sëriñ Cheikh Abdou bi ca la bokk waaye Fatma Mbodj moom di taalibe Serigne Touba kon jàpp na ne kenn pëlu ko ci borom Touba ndax Serigne tubaa moom doon ci taalibe sax damaa yaakaar ne mooy cër bi gën a rëy loolee ñun ñëpp ci leen bokk te defar dëkk bi nag moonu tax a jóg te ñun ay taalibe Serigne tubaa lañ yoo xam ne kenn ku ne liggéey Serigne tubaa moo la gën a loo mën a am nga ju nu amit liggéeyal ci Serigne Touba jàpp naa danoonu jëriñ teeg ëllëg te liggéey borom Touba jaamu yàlla liggéeyal borom Touba ci lislaam la ci ndigalu yonente bi aleyhi salaatu salaam liggéeyal borom Touba askan wépp nga liggéeyal ndax moom kat léppam delloo na ko ci askan bi defar na mbokkam defar ku dul mbokkam def ci moom diine ak lislaam ba muy jariñ di jariñ ay askani askani askan kon loola ci lañ tënku ci lañ taxawaat ci lañ jëm kon daal nan nan ko xamee noonu te xamee dëkk bi rek a ñu ñor muy nun ñii di candidat waaye muy sëriñ si toog di sëriñi daar ak ñëpp ci askan wi ñoo xam ne ñu ngi sonn ngir changement am ñëpp noo bokk bëgg lu baax kon yàlla yàlla defal lu baax loolu te incha allahu rabbi ndam rek lay doon ñoo ngi leen di sant sëñ bi bu baax a baax a baax asalaamaaleykum wa mu bëri mais kuréel gu am solo gi ndax buñ ne gën ci kaw suuf yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy kenn nee na ki jàng alxuraan pare di ko jàngale kon dama jàpp ne booy def politique ba ki gën ci kaw suuf ñëw ne lay jàppale loolu da nga koy dalal ñaana ko yàlla jàppale gi mbañ ci yaakaar mbañ ci tas te yaakaar naa yéen doo leen nekk fenn fu yaakaar tase te bi ngeen ko defee ci local yi gis nañ ni mu ñu apporter ak njëriñ li mu juruloon mais day wane rek réew mi dafa toll foo xam ne dafa soxla doomam yëpp sëñ ci amati Tijaan Si Al Maktoum te wax naan fii demuñ ba ab mécanicien jóge ci gaara du mécanicien bi jot ñu nodd mu dem jiite ci jumaa yi xamaguñ mooy diine ah suñu jàtt yaa si albaktub moo daa wax loolu fii chef de garage mécanicien maanaam waxtu julli jot ñu nodd mu dem wekk mbuubam fële dem jàpp ba set dem ca kanam jiite xamaguñ lan mooy diine kon Sénégal moom waruñoo catégoriser kenn Sénégal ne Sénégal bii mu war a def lii bii mu war a def lii te li may faral li wax rek naan politique moom bu dee lu baax la ñëpp a ko war a def bu dee lu bon la ñëpp ko war a bàyyi waa amul benn Sénégalais bu ñu réservé ne kii moo war a def lu baax kii moo war a def lu bon wala ñëpp war ko bu dee lu bon bi ñëpp ko war a bàyyandoo kon na ngeen xam ne fii kenn ëpp leen ci place ne ko sëñ Abdoulaye Yaqin waxee léegi rek boo leen ko defut tamit ay saay saay def ko di leen manipuler tam tax xew na lii xew ci sëriñ daara yi fukk sëriñ daara ak juróom mënuñu woon imaginer ne bis dinañu ñu tëjandoo leen ci benn kaso loolu kenn mënu ko woon imaginer vocal biñ ko déggee ñun ñëpp la tuuse bi muy lim sëriñ daara yi ne diw nangam diw nangam diw nangam te mboolem lu sëriñ daara yooyu def bañ jàpp leen dugal leen ci kaso bi am na ñu def lu ko gën a pire fuuf ñu ngi dox seen soxla kon jàpp naa ne li ñuy tollee reer daara ku su néew Sénégal buñ leen bàyyi woon lañ yor a ku su néew doo ñu mën ci àdduna bàyyi wuñ leen lañ yor ñu ngi leen jabolise sëriñ daara bu fi juum ba jàdd sax ni ko presse bi di interprété di asar wu ci seen kaw bokku te jàngkatu nasaraan kon nag jàpp naa ne yéen li ngeen def bokk na ci paa bi nga xam ne bu liggéey ci biir koo leen fi mën a teg dina xam ne sëriñ daara yi kat fépp nañ jël nañ seen responsabilité am mais Pastef daal parti sëriñ daara yi ndax Ousmane Sonko mi sos Pastef du ma ne Ousmane Sonko mi sos Pastef sax mais Ousmane Sonko mi jiite Pastef moo dugal boppam daara loolu lu mat di leer la dem na ba egg ni niveau université bi jàng université Gaston Berger xalaat ne diine war na ko gën a mën a renforcer dem dugal boppam daara daara sëñ Moussine Diop Saint-Louis bu vacances jotee mu ne moom du vacances Casamance day toog Saint-Louis di jàng kon kooku diine ñor na ko li ko rëccoon ci bopp it dab dabaatal na ko ci ak njabootam kon daal jàpp naa ne sëñ sunu baay jii ngeen àndal sëñ Baay Cerno Mbàkke kenn mun doon imaginer ne bis dina ñëw di ngeen dugg ci lii ngeen nekk nii kon lii leen ci dugal rek ñun moo ñu de milliers de sëriñ daara lii ngeen def buñ ko mënoon def ñoo ñoo def ko seen kanam te xam naa niñ leen encouragé niñ leen ñaanale sëñ Abdou Khadim Sarr nga xam ne kenn la ci ñun bokk ci membre Pastef yi gën a actif di seen kuréel gi nekk ci jàmbaar jàmbaar jox ne kenn mënu ko naatale kon day mel ne kuréel gii ngeen taxawal moom ñun Pastef di jig nañu ndax bu masa woote yéen a ngi ca yéen a ngi participer suñu suñu suñuy suñuy levée de fonds yéen a ngi participer suñuy vacances agricoles yéen a ngi participer suñuy suñuy journée don de sang kon day wan ne projet bi yéen yéen ñu ko gën a bëgg te it da ngeen xam li Ousmane Sonko woote xam ne njariñal bopp moo ci gën a njariñal Sénégal yi te sëriñ daara mooy ëpp solo ci société bi sama gis mooy ki ëpp solo ndax yonente bi moo ne ki gën ci nit ñi mooy ki gën jàng alxuraan di ko jàngale kon nag jàpp naa ne yéen yéen a gën ci société bi li ngeen def mooy li gën ci société bi kon boo leen ci wëlbatikoo fekk si ñu li ñu def ñun suñu xel dina dal bu baax a baax man de addition yi mos a ñëw ne dañuy jàppale coalition bi yëpp Serigne Touba laa koy génne ne bii moom ma ci gën a dàqal ndax xam naa ne doo waxoo leen ngir ay tappale waxoo leen ngir ay dóor nekkoo leen ci kabara ngir boo leen fi jógee ko leen mm-hmm. laa sama xel dal ne boo leen bu leen nit seet si woon jox leen na loo xamante ni di ngeen ko jomm ndax gone yi ngeen jàngal keneen ku yéen boo boo leen jógee sama xel dina jàppale mais daal lii moo taxoon ma ne dinaa ci mais bu soxna Fadou mi waxee wax na ci turu Cheikh Abdou Bara Doli wax na ci turu Soxna Assou Mbacké wax na ci sama tur asalaamaaleykum wa rahmatulah